te ku ne xam ne réanimation une semaine ku ko passé xam nga ne kooku boo loo loo dundaat rek yàlla suñu borom la neex ndax kenn du ne diw day dee ndax yàlla suñu borom moo yor bakkan mooy toog bu ko heure bu ko neexee mooy rey mooy joxe mooy bàyyi mm. kenn du ne diw sax nangam mën naa dee mais dafa nekk situation boo xam ne en tant que ay jullit Sénégal pays lislaam Sénégal jàmmoo Sénégal mag ñu baax ñi nga xam ne dañ fee tëdd kon nag yaakaar naa ne képp ku juddoo Sénégal wala ngay sénégalais wala jël lu naqar wala lu bon di ko teg sa morom mais Ousmane Sonko li muy dund ci jamono ji metti na mu mm. doom ba avocat génn di wax ay soxnaam génn di wax nit ñi dem ba nga xam ne feebaram bii situation bi muy dund jaaxal na ñëpp kon nag nañu am yërmande mm-hmm. ci ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw Bamba xam nga dafa am loo xamante ne mm. dinaa la ko wax mm. gis nga bu fekkee ni nguur gi ci boppam dafa def démonstration de force am ni que ni ñoo mënee ndax fii lañ fi taxaw ñu ne force mm-hmm. à peuple bi la ndax ñoom tey lu ñu am doole am doole lu ñu yor seen i genre de combat yor seen i genre de combat lu mu ci mënti doon peuple bi moom mooy souverain. Mhm. il faut que nit ñi bàyyi xel loolu tey état bi ak lu ci mën a nekk ci ci ci gouvernement am lu ñuy mën di lekk ak di koy naan di dawal ci oto yu baax yi. Mhm. ak di dugg fu leen neex nguur gi ci boppam nañu xam ni que ni peuple bi moo leen ko def. ce qui fait que nag gis nga soo mhm. dóoree nit ba mu tëdd. waay waay bàyyi ko yow Ousmane Sonko bi muy nekk Ousmane Sonko. régi bi bi bi nga xamante ni Ousmane Sonko moom mooy Ousmane Sonko ba fi may waxee yow. Mm. nga jàpp ko ba fuy ay droit am yëpp. xanaa nag léegi yaa xëy si nga dem ba retiré ko ci liste électorale yi nga dem ba nangu li nga xamante ni tey jii moom mooy parti nga dissoudre ko. xoolal coono yooyu yëpp. Mm-hmm. ba muy nekk député à l' assemblée nationale. problème Adji Sarr taxoon ñu tekkal tekkatee li nga xamante ni mooy àq ak yelefam immunité parlementaire ñu daal di koy jël ba fuy ko. jël foofu nga xamante ni tey jii magistral euh, euh, Ziguinchor mhm. Ousmane Sonko ñu ne ko léegi dañu la koy privé ba yow léegi Ziguinchor doo fa bum doo fi mi nga barricade këram loolu lépp nga teg ko ci nit ki waaye yaa xëy si soo demee ba nga jàpp ni kii moom mooy nitu fitna bi nga jëm ba jàpp ni kii mooy salafiste bi loolu lépp nga jël ko ak mbooloo mu toppoon ci ginnaaw xale yi nga xamante ne dañoo amoon espoir nga ne léegi loolu doyu la nga jël ko yóbbu ko prison loolu doyu la nga récupéré ko mu mu am tawat. mu nekk ca pavillon ba léegi nag loolu ñu naan mi ngi ci diggante dund ak dee waaye waaye ana yërmande ana lan lañ war a mën a xaar ci wàll wi cependant yow yaa ngi naan danga bokk ci ñuy nekk ci woo war a dem fa nga xamante ne moo di pour problème mu jàmbur mm-hmm. kon ñoom loo leen laaj la ngi naan yéen vous êtes kii yow sa problème kër mënoo ko lijjanti. kuy wàll yaan day fekk sa dëgg tëggul. waaye comme mais dëkk gi tëggul tëggul ak yem de kii daa tëgg ba dugg ci rimba papa. mi ngi noonu nag. it faudrait que nit ñi ñuy comprendre loolu balaa ngay dem di waxi problème jàmbur lijjanti sa problème ñun Sénégal dafa am lu ñu xar baaxoo ñu moom la ñu xam mhm. moom la fi maam bàyyi woon muy demalante laay di laayabante biir mais pas yow di yor nga benn pouvoir bi sa pouvoir bi rek ngay jël contre sa population mhm. nekkuñu ci régime dictatorial nekkuñu ci wàllu woowu wala dañoo nekk ci loolu. quand mhm. on parle de Yaya Jammeh nit ñi ñëpp dañu naan waaye Yaya Jammeh ni mu meloon moo taxoon. waa léegi Abdoulaye Wade ni mu meloon charisme kenn ëpp ko ko woon ma yërmande Abdoulaye Wade moo taxoon da ngay dox ci mbedd sax di for xaalis. Mhm. qu'on la vérité fii kenn doxatul ba for xaalis. amatu fi gis nga nag ni nga mel noonu la sa régime di mel noo mën a mel ci àdduna te te mu nekk ci yow. mais nag dans tout ça man damay wax saa su nekk première dame dama ko koy wax dama ko koy interpréter chaque fois. première dame su buggee affaire bi dàq day dàq ndax mooy yaayu ñëpp première dame soxlawuñu ko rek mu toog pale l'heure est grave. l'heure est plus grave. moom day moo tàmmoon li ñu wax l'heure est grave mais yaakaar naa ne fi mu nekk nii tam l'heure est grave ci ki nga xamante ne bii mooy Ousmane Sonko. alors David dañuy ñëw ci beneen mbir rek moo xamante ne bii donc dañ ci enchaîner directement. muy euh, mbir moo xamante ne bii Serigne Mountakha Mbacké gis nañu ko mu euh, jël ay tàndarma donc euh, jébbal ko. délégation Yewwi asken yi nga xamante ne bi ñoom ñoo demoon foofu ci Touba ziyaare ji ko mu euh, jël ay tàndarma jox leen ko ne leen bu ngeen demee jox leen ko Ousmane Sonko ngir mu dakkal li nga xamante ne bi moom mooy euh, grève de la fin bi nga xamante ne bi moom la nekk jamono alors beaucoup de questions se posent ñenn naan waaw euh, mise en scène la ñoom ñoo yóbbu woon tàndarma yi man ci ay information yu wérte wóor xam naa ni Serigne Mountakha tàndarma yi ci moom la jógee du délégation bi ñoo yóbbu woon tàndarma yi déedéet Sëriñ Muntaxa Mbàkke ci boppam moo jël tàndarma yi jébbal ko waa Yewwi Askan ne leen joxal leen ma ko Ousmane Sonko bu ngeen demee mu barkeelu ci ngir mën a dakkal li nga xamante ni bi moom mooy grève de faim bi alors lenn li ñuy posé wu la question rek mooy est-ce que Ousmane va accepter carrément euh, li nga xamante ne bi mooy proposition Sëriñ Muntaxa et puis bu ko accepter en revanche lan la Macky Sall war a war a war a xalaat ndax itam comme sëriñ bi digal na la nga def yow euh, itam bu la digalee da nga war a def donc loolu mooy. Euh,